li gën a fës ci yéen kaay yi daañu ci ànd ak euh, Modou Fall Modou euh, foog naa ne dañ koy tàmbaleek observateur observateur waaw ngeen seen ko noonu ci xëtam bu njëkk mu wax daal li nga xam te ni moo di euh, jëm ci wàllu tabaski bi ki nga xam te nag mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu càmm gi amal nag waxtaan gu yàpp ak yéenekaay bi wane ni daal xar yi la desoon ak li nga xam ni moom mooy njëg gi ci fañ ko door rek fa muy yem ba leen ko bëggee xam mën ngeen euh, tijji yéenekaay bile euh, Mbour ñu ne daal ki nga xam te ni moo di Audrey Bijard euh, ak Souleymane Sidi Seck mu di daal yëf yi nga xam te ni yëkkati nañ ko ci wàllu yàkkataan gi ñuy wax jamono ji ci yëpp taarixu wala histoire pour viol Euh, ba tey ca Kédougou ñu ne accident bu am ci ñaari moto yu mbëkkante ñeenti doomu aadama euh, ñàkk ci euh, seenu bakken Macky Sall di président bu Sénégal dem ca tournée ba Thiès yëkkati nee na ponse gi daal fu mu ne nii Golariya dana ca dolleeku saf lool la lay doon ñu wax ci ñett doomu aadama yoo xam ni teg nañ leen loxo ñaar am ci ay gaañu gaañu ba sax kenn ki moom mu ngi ci coma loolu yëpp ci tournée ba la ñuy wax ci leen li nga xam te ni moo di Miss Sénégal ñu wane daal juróom ñaari xar kanam nga xam ni ñooy jongante te euh, beneen bi euh, di daal ci wàllub euh, li nga te ni moo di gunge way feebar ca l'hôpital bi mu di daal ñooy gunge nag ñoom ca jafe-jafe la ñuy nekk moom la yéenekaay bi di l'Observateur wane ci xëtam bu njëkk libération wax ñu daal ci allié bu bees euh, ci euh, pouvoir wi Macky Sall daal di nay euh, yëgle ni Goloria dana ñëw dolleeku ci mburook soow yëkkati na ci lu tollook fukki milliards ci koppar ci wàllu ISEP yeeg moom muy jam ñaa jokk bu Thiès bi mu doon inauguré ni ki démb ñu wax ci wàllu libération ni nga te ni moo di exploitation produit halieutique yi ci Sénégal muy wàllu ñam yi nekk ci géej gi ñu ne daal ñu ngay topp ab piste goo xamante ni wàllu mbuxum la di ay chinois Niass Baba Diaw ak ñaari plainte yi nga xamante ne am na ñuy wane daal euh, diggante boo xamante ni ñagas na lool ci ñaar ñi nga xamante ni ay associé la ñu woon. Le Soleil yéenekaay ISEP nekk ab modèle goo xamante ni euh, bu séduisant la ci tubaab loolee daal di euh, ñaari bërëb yoo xamante ni xam-xam lañ fay jàngale jam ñaa jog Thiès euh, président de la république inauguré ko ni kii démb wax ci li nga xamante ni moo di Madiambal Diagne mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon daal di may rek mu mën a topp kii di Souleymane Teliko gannaaw nag bu ñu jógee ci bu yéenekaay bi ba tey muy wax ni fu mu nii daal lii di bërëb bi dañu wax ci wàllub social fële ba tey ci Sénégal nee daal weer euh, yi nga xam te ne ñoom ñoo yor wàllu alam gi ñoom fu mu ne nii euh, ñu ngay yëkkati seen kàddu le quotidien affaire Madiambal Téliko ñu ne ñu ngi ci ñaareelu pàcc bi mu di acte deux euh, garde des Sceaux di jëriñ ñu dënk wàllu yoon moom fu na ne nii daal daal dinay may ma jàmbal mu topp ki nga xam te ni moo di magistrat bi euh, Fadel Baro ci euh, yéenekaay bi nee na moom fu na ne nii daal dafa maar ci politique yi ki Sall ak Idrissa Seck ca seen tourne ba ca Thiès fu na ni nii mburoog soow mi tax na lool ba saf goloria viol présumé maanaam ab càkkute goo xam te ni mu di yàkkataan gu ñu ne meeku ci Souleymane Sidi Seck moom nag teg nañ ko yoxo mu ngi mandat dépôt euh, ñaar ñi nga xam te nag mu di fecckatu euh, Wally Seck yi di Ahmed Thiou ak Amady Badiane bu matul daañu leen tëj juróom benn weeru kaso vox pop mu di vox populi nee na daal déferlante orange ak marron maanaam euh, di couleur parti Idrissa Seck ak euh, bu président de la république nee na daal Macky way na mbur ak soow bu ñu euh, dooleel ak Gloria di tournée ba ca Thiès nee na laale ci diggante kon opposant yi ak nervi yi ba am na daal ay ñu ci am gaañu gaañu ci waa opposition bi am na ñoo xam te ni tamit itam teg nañ leen loxo Seydi Gassama du àdd nee na ennemi yi gën a mag daal moo di suñu dirigeant yi tey ji mooy activistes yi ñi nga xam te ne daal ñooy dirigeants yi ñu jàppee ni ñooy seen ennemi mooy activistes yi Ahmed Thiou Ami ak Amady Badiane ñoom boo moytul daal daal ñu leen tëj te ñaari at yoo xam ni juróom-benn yi weer yi dañ koy tëdd source A nee na secret enquête bi am ci diggante doomu Cheikh Yérim Seck mi ñu tuumaal wàllu puyol ci ab mineur ca Saly moom la euh, yéenekaay bi xëy wax Juge ko moom daal dinay yëkkati ay kàddoom nag gannaaw bi Madiambal Diagne war a porter plainte te euh, jëriñ juñ dënk wàllu yoon may ko ko euh, Mamadou Diop Thioune yëkkati ay kàddu ci wàllu accord de pêche nga xam te ni moo di ak Sénégal nee na daal Gambie daal dinay dax lépp wax itam ci tournée bi nga xam te ni président de la République amal na ko cees ba yëkkati kàddu mborok soow bu ñu safal golor ya record mu di euh, journal euh, yi nga xam te ñooy wax ci wàllu tàggat yaram Belgique Italie nee na daal boobee mooy choc bi gën a mag ci àjjuma gi ñu dëgmal Angleterre moom euh, moom dana daje ki nga xam moo di Ukraine ci quart de finale li gannaaw nag ba mu daanee ki nga xamante ni moo di Allemagne wax ci fii ci Sénégal football choc jaraaf jàmbaar waaye itam Pape Abdou Fall mi nga xam te ni dekkaliwaat na kombaawu wu indépendance stade yenn kaay Angleterre mi jeexal groupe poule de la mort bi ñu nemeekoon ci euro bi ginaaw ba mu daanee nga xam te ne moo di Allemagne moo ca desoon Copa bi ñu ne Chili moom boo moytul Brésil lay dajeel Équateur Argentine. sunu làmb ñu jeexal cité Papa Sow bu benn fan ci weeru août super ndaje bi tey lay doon ca Ibamar Diop kon bu ngoon jotee euh, test bu mag nag ci Coly Faye ba tey ci yenn bi wax nag ki nga xam te ne Euh, moom li mu yëkkati rek ci diggante Mame la ak mbay guy gi nee na daal juróom fukk juróom fukk ci téeméer boo jël mu di cinquante 50 moo ra ngay wax sànq ni chroniqueur làmb ji daal boo waxee rek ñu ne fukk fukk. fukk fukk wala ku jum daanu. wala ku jum daanu. <laughs> boobu daal moo ci gën a siiw. ku jum ku daanu ak ku daanu da ngay féete kaw. wala témboo nañu xam Eh, bien sûr que ku jum eh, ku nu daaneel c'est parce que da nga jum moo tax nga daanu <laughs> donc eh, c'est pas trop. wala yemoo nañu doole recherché quoi. ñu yemoo nañu doole. yemoo nañu doole rapidement benn question mu di euh, euh, yaa ngi koy wax Seydi Gassama di wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee langue politique. Mhm. Euh, langue politique bi bu ñu demee bay wax ne que ne activistes yi seen i ay. Euh, ennemi ennemi waaw moom dafa jàpp nii daal ñi nga xam te ni ñoom ñooy euh, leader yi fii ci Sénégal wala dirigeants yi sax ñi ñu jàpp mooy activistes yi activistes yi nag boo leen xoolee. Mm-hmm. ñoom Guy Marius ñoom Karim Xurum Xaq. est que yoon la xool euh, xëy na dañuy déranger ñi nga xam te ni ñoom ñooy woy politique ñoom ñooy yëkkati yenn kàddu yi nga xam te ni jàpp nañ ni day xaw a nasaxal lépp luy politique yi jëm ci ñi nga xam te ni ci wàllu politique. Mm-hmm. rawatina nag ñi nga xam te ni ñoo féete ci nguur gi. Mm-hmm. ba xëy na Seydou Gassama jógee ci li nga xam te ni moom moo di Karim Xurum Xaq ci conférence de presse am ni ki démb yëglu ni dañ ko dóor daal di koy torturer ca commissariat ba gannaaw nag ba mu ne day manifester li nga xamante ni mooy contre projet de loi bi ñu jàllale ci assemblée nationale xëy na foofu la Seydi Gassama sukkandiku yëkkati ne daal jamono ji euh, leaders yi wala dirigeants yi nga xamante ni ñoo jiite réew mi euh, bokk ni ci seen i noonu daal muy activistes yi 7h40 jot na Mor vas-y vas ak euh, kuy kuy wut buzz. Mhm. parce que activiste da ngay am xam-xam. d'accord waaw mais ay Snowden Edward Snowden. Mhm. da ngay am xam-xam. doon def des activistes ñu xam leen yépp ci àdduna bi. doo jékki-jékki rek di wut buzz naan activiste la d'accord aussi il faut faire la nuance. merci beaucoup Mor Talla jot na waxtu wi